salaamaaleykum Afrique Europe Amérique Asie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen nuyu di départ dugg euh, sanc ba Algérie montagne coxna kër Serigne Louga Touba Seras Medina garage Njang Ba Mbodj ginnaaw raay kanamu raay HLM Bagdad HLM Grand Louga HLM Jiri daal di dugg nag Jéemen génn fa ni mengi ila Algérie ma départ fa dugg Italie ñu bëgg maa karaté ma leen bokk nga xam ni moom moom mooy Pologne ñu bëgg maa jox Pol man leen saafu ma gerte génn fa daal di dugg fi nga xam ni moom mooy dégg nga maam Bolivia ñu waxuma Boli man leen yàlla teexe teexe teexe ak ceeb fële lépp ci senegal waaye nag euh, Ndiaye saxaar nag bu jubee gaar day corne ñu daal di départ rek daal di duggaat nag euh, euh, fi nga xam ni nag ah Ndiaye mhm. bu yàggul dara rek mhm. ci kàttanu yàlla mbaaxam mhm. ci lañ inauguré jumaa ju mag ji nga xam ne moom mooy jumaa yi euh, Masaalikul Jinaan waaw mooy li xew de. waaw mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal bu baax a baax a baax Serigne Touba euh, Serigne Mountakha Mbacké mhm. ñaan mu yàgg fi lool euh, te waaye nag foofu dañ fay xuusani njaay mhm. tuuti daal di nag continué yooyu waaw jërëjëf doyen xanaa di amati mbégte ak contentement jàkkaarloog yow jàkkaarloog askanu Sénégal di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci di la sargal te di la tatagal ndax it wax dëgg yàlla euh, amuñu lenn lu dul doomi réew mi amuñu ñenn ñu dul ñi nga xamante ni nii ñooy seetaan Télé Futurs Médias mm-hmm. di euh, kontaanati tey gën a wax alhamdulilah ndam li nga xamante ne nii l'islam amati na ko mm-hmm. ndam li nga xamante ne nii euh, Sénégal amati na ko mm-hmm. ndam li nga xamante ni julitu Sénégal gi yëpp du ma wax murid yëpp dama naan julitu Sénégal gi yëpp ñoo ko bokk ndax wax dëgg yàlla fi mu toll nii jamono yi ñu toll moom. Mm-hmm. ah wax dëgg yàlla Masalik moo xew. ah moo xew ah. <laughs> moo xew. di mbégte mu rëy rëy. waaye man doyen. Mm-hmm. dafa am loo xamante nii moo ma ca rey. xam nga kenn ku ci nekk mbir bu ñëwee. Mm-hmm. la la cay daaneel daf cay am. man la ma daaneel ci mbir ma xam nga kan moo man kan moo ma jooyloo ci mbir mi. muy kan Papa Malick Sy. Papa Malick Sy. Bakary Dramane Armando Kouma Thiam. taxawaay ba mu taxaw. ci ci ci Jinaan. Euh, jege gëm jege sëñ Muntaxa mhm. loolu moo lay wan ni Sénégal mhm. Sénégal rek la mënu ñoo fexe ba mu nekk Mali mënu ñoo mhm. fexe ba mu nekk Guinée Sénégal Sénégal rek la waaw loolu loolu junj na lu bari doon Njaay loolu dafa nekk lu am solo Sénégal euh, benn bopp rek kenn mënu koo xar waaye keroog la ñu taxawal ca Masalik ñëpp àndandoo képp koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñëpp àndandoo doon benn bopp yëkkateendoo tegandoo Pape Malick comme ni nga koy waxee teewal waa kër Maam Alaaji Malick rek teewal na yeneen yeneen kilifa diine yëpp. yëpp vraiment mu nekk loo xam ni dañoo indiwaat wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mm. euh, dañ ko indiwaat keroog. mu mm. nekk loo xam ni lu dëgg mooy jul yëpp. dañoo tënku keroog. Mm-hmm. ci benn àndandoo te loolu rek moo mooy li nga xam ni mooy li waram ñu bëgg ci baax a baax waaye nag loolu mën naa nekk. Mm-hmm. du maay masaalik ndax dañu ni euh, noonu yaa ko génne néegi mbàkke baari sàndarma mhm. saa nga naan ko ndar ngay jaari mhm. mu jaari ndar muy bëgg a mel nag daaru ñu daal di koy jëlax mu dem ndakaaro mhm. waaye ñu ni boo xalemee ñaari guddi ndakaaro ba déglu wax ja Bàmba wax nga waaru isa zakartu zalikal mabita wa zalikal amina wa sabut kon jërëjëf Serigne Bamba jërëjëfati jër Xadim Moustapha bu ñu fa jógee nag daal di ziar bu baax a baax ki nga xam ne mooy xarit di suñu xarit di xaritu Njaay mhm. ah, xalifatul am di bu sell bi mhm. nga xam ni bu ma nee bëkk rek dara maan rek ne aram loo kumba caam bañ pend ak paate pend ak bëgguma pend xar yàlla boobu coor rek Njaay dama lay jox kàddu rek bu ko def nga dugg ci Serigne Babacar si sëñ Bay si maas waaw foofu sunu maam ji nga xamante ne ndeysaan moo fi génnee barki démoo Njaay di uh, sunu maam alaaj Samba Jabari Samb di ñaan uh, yàlla na suuf oyof sedd lool ca kawam mhm. ndax wax dëgg yàlla yàlla moom itamit dañ ko daan imité bu baax a baax a baax a man dama ko daan déglu mm-hmm. vingt quatre heures sur vingt quatre ndax mën a am ci moom loo xamante ne nii dinañu jariñ mm-hmm. ci ay waxtaanam mm-hmm. ci ay woyam kon la mooy Seydi Aji Malick dëgg la bi naan sawiato ndeysaan aram bongo aram joor aram bongo aram bongo nguy njaay biram ko jotam mooy seen bay ndeysaan ak ñaaru géej doy naa naan doy naa sango biram samba saateeñ mbañ jëleem jëlee ma numba biram jëlo biram jëmma kumba burum njaay ba këreeg dara ma aram loo kumba caam yooga faat ma bàyyi siraay ñu mee sara bay loolu foor na yal na ko yàlla yërëm ci barke di ko jaale it ay décembre ak ak ak lul la mm. képp koo xamante ne rek yaa ngi ci traditionnel beeg communicateur yeeg Sénégal gépp daal lañ koy jàll doon. kon euh, ziar bu baax a baax xalifa maam Cheikh na Cheikh Saad bu waxeertu. xeertu xalifa yàlla na fi yàgg lool te wér. xalif mm. Chérif Alwali Maane Ndiaye Chérif Ba Chérif Saaya Aydara. bu ñu mm-hmm. tar taañañale dugg Ilaa Yoof ziar bu baax a baax a baax. Euh, lu laayeen gépp mm. waaye ziar bu baax a baax waa kër Cheikh Amadou Kabir Mbaye ci Louga daal di ziar baax waa kër Thierno Basir jël ziar bi teg ko ci lool ci loxol ki nga xam ne moom mooy Thierno Cheikh euh, Thierno Cheikh mu mu mu mu mu mu mu Thierno Basir. Mm. di ziar képp rek kuy kilifa diine waaye. Mhm. xam nga Youssou Ndour. maa toll nii maa moom ndeysaan jaay ñëwal. waaye. waaw. ndeysaan ci dëgg-dëgg. Mhm. sama yaram dafa daw lool. ndeysaan. ki ñu waaj a tudd. maa sonal maa dëgg la. doyen moo daa wéy kan. comme daan way ci dëgg-dëgg moo daa wéy maa sàmm sàmm sa du kàmpoo Ndiassane ak day ma waar. dëgg la. du laaj fu mu bokk. fan la bokk. ndeysaan bokk ci askan wu rëy wu ñuy woowee askanu Ngawlo. Ngawlo. Youssou. Mhm. l'Africain pour Populaire. ndeysaan. <laughs> le ministère pour Populaire. Populaire. le Ndadaal pour Populaire. Mhm. ndeysaan le ministre pour Populaire. dëgg la. mu may fàttali. Mhm. alaaj Kane Samb. Youssou. ci digg moo doon alaaj Samba Jabar Samb. dëgg la. Youssou. ci dëgg-dëgg moo doon alaaji Ablaay naar mm-hmm. Yeesu mm-hmm. ci dëgg-dëgg ci dëgg-dëgg def na fu lu nekk dëgg la tey la tey bi nga xamante ni ci la ci la gane na àdduna mook mook doomu ndeyam ba jëy fay seen seen biram jëy kéw yaa yaaw jaañ mm-hmm. il ma nduure baayam ci dëgg-dëgg yaa ne soxna mu bay yaayam rek waaye nag ci dëgg-dëgg ci ànd bu rafet ba ki nga xamante ne mooy nijaay bi Ousin Ndiaye ci dëgg-dëgg. moo yor super étoile. créateur Futurs Médias. créateur FAP. créé l'observateur. ci dëgg-dëgg créé créé yeneen chaîne yoo xamante ne ci dëgg-dëgg ñëpp ñu ci jaruñu. man day ndeysaan. dama koy gërëm gërëm goo xamante ne c'est particulier. ndeysaan. moo tere yow fajar. gannaaw ma jullee ba pare tëddaat. ci dëgg-dëgg Futurs Médias. ah sonal ñu benn yoon ci lenn kenn du la topp topp du la maar kaas xalaat dëgg la. loolu ci yow la am dañuy dund. wér na. ci digg rek waxul dëgg rek wax leneen. dëgg la. ñu ngi doy xoolal tey yi ñaaw. waaw. ñu dëgg dëgg tey rafet. Mm-hmm. bu ñu ko bàyyi. ndeysaan ci jàmbal gum ñu jàmbal moom ak ay rakkam. dëgg la. ba ca ay goroom. ndeysaan. ci digg rek ba ca ay liggéey katam. Mm-hmm. kon Youssou. Mm-hmm. moo tax nag. happy euh, Happy birthday to you, you Sandour. Happy birthday Njaay bi ñu sori dañuy kii ndax euh, defoon na fi lu am solo muy waay bu am solo euh, euh, waay boo xam ni macha allah boo ko déggee rek mu rappelé lu bare bare bare bare bam naan dem nga dem nga dem nga dem nga mu yàgg ngi bëgg soobi dem nga dem nga dem nga dem ba mu yàgg ngi bëgg soobi teel jàppal gësul gësul li la war sa wareef li la war mooy nga def ko bul di jaawale soo defee li la war am li la war boo deful li la war danga naan nuus ni yàcc ya sax jox ñu ko ci kër gi la maison teg bu ko teg ni seex ak yi suma jigéen ni euh, way ni am na solo muy euh, way bu am solo boo xam ni képp kuy jigéen rek euh, gis nga sa bopp ci son bi nga xam ni jigéen dañ koy teral jigéen dañ koy toppatoo jigéen dañ koy fonk waaye jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñu soxna kon njaay mu nekk morceau bu am solo waaye nag joyeux anniversaire ah monsieur le président directeur général Youssou Ndour li nga xam ni Ndiaye fi nga ci jaar duma ci jaaraat ndax macha allah. Euh, li nga ci wax rek doy na sëkk euh, nekk na koo xam ne exemple la ci réew mi mhm. def fi lu ne macha allah taxawal fi ay ay kër yu am solo ba ji ñun ñi ku mel na ñun fuñ ñu gis apprécier ñu mhm. moom jëmmam jooju moo tax kon ñu ngi lay ñaanal euh, Ndoura Wala Mbargane dunda la dunda dunda dunda dunda dunda dunda dunda dund di dund di dem rek di dund di dem rek ndax yow loo dund doyul ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax suñu borom guddal fan yi wéral teer yi yokk xéwal gi sàmm la sàmm njaboot gi ak suñu directeur yi ci kër gi yëpp Ndiaye jërëjëf doyen ko ku bëgg lu baax ku ne da koy bëgg waaye nag euh, wax dëgg yàlla lépp lu ñu wax ci moom rek euh, du doy ndax euh, xam nga ki la noppal ki la jàmmal kooku mooy ki nga xamante ne ni moo la sago moo la safo moo la faale waaye nag it mm-hmm. di dollee gërëm ki nga xamante ne ni mm-hmm. mooy sunu grand mm-hmm. suñu kilifa. nga xamante ni fàttewuñu benn yoon. suñu xarit. li ma neex ci moom doyen. am na nooy waxee rek ma xam fi nga jëm. barke Seydina Mouhamed. waaw xam nga lu ma neex ca moom. mooy que wax dëgg yàlla. ku ko woo mu jël la. Eh, te doyen nit toll na fi foo xamante ne ni surtout sénégalais. Mhm. yàlla da koy dimbal as bu la koo ci woo du la jël. koo ci woo du la jël. barke bi. waaye moom foo ko mu jël la waaye na mu mel a tax. waaw ndax fa mu bokk Bakary Dramane arab loo Kumba am di doom. di taalibe ci Serigne Mansour si. Mhm. Bakary Dramane gëm yonent bi teg ko ci bakkanam mooy léppam. am diine teg muy El Hadj Petit Gueye. borom seen jën. Mhm. grand ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare. di ziare waa Mbour yëpp waaye du ñu dugg Mbour. Euh, wuñu ki nga xamante ne nii mooy sunu xarit. Sonia bu Diop borom boulangerie la Kajoor di ko nuyu bu baax a baax moom ndeysaan léppam TFM la moom pédigéeyam seen lépp TFM la dañoo bëgg TFM jël teg ko ca kaw mm-hmm. Mm-hmm. Ah, wax dëgg yàlla di ko ziar bu baax a baax ak mm-hmm. soxnaam di nuyu ah, ki nga xamante ne nii mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di suñu xarit ah ahlul mbakki yu nobul sëriñ Tuubaa ga bay Karim Mbàkke sa xarit ja eh, laa ilaaha maa ngi lay ziar bu baax Mbacke Balaye sa di ñaan yow it uh, suñu borom def nga yàgg fi lool. Mm-hmm. te wér ndax sa yàgg fi am na njëriñ uh, di nuyu Modou Fleur soxna Fat Bintu Abdou Karim. Mm-hmm. maa ngi koy jaajëfal waa kër gi ni leen di wax bi nag namu naa la. Mm-hmm. sëñ bi waaw waaw namu naa la Mbacke Balla waaw taarkaal di la ziar bu baax tey uh, bëgg ci moom di ko ñaan fu ñu toll waaye Ndiaye. ñu nekk ci moment boo xam ni macha allah jamono ji fi ñu toll nii tàng na jër. waaw tàng na fi ne boo taxawee ci bitti sax boo moytuwul dégg nga maam. Mhm. Euh, euh, naaj wi am nu mu yow. Mhm. Euh, ñuy wax rek ni. Mhm. bu jamono teel foofu nañu xoolaat bu baax xale yi. tegaat leen ci yoon. naaju ceer bi waaw ci naaj beeg ci yooyu ak ñoom seen. bu ko defee rek ñu daal di leen di aar bu baax a baax a baax yow mi nga xam ne kilifa nga ne ci kër gi di ma seetaan ni. xale yi toll nañ ci war a delluwaat ca daara ya jàngi. nañ leen toppatoo bu baax tey xool fa ñuy dugg fi ñuy taxaw ndax loolu am na ci solo bu baax réew tegaat den ci yoon bu a baax a baax. loolu doyen dafa am solo moo tax euh, a baax ñi nga mm. euh, la santé et de l'action sociale. Mm. di ko nuyu bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla. Mm. Euh, nit ki moom li nga xamante ni moom nga gis. mu ngi ciy def ay jéego yu. am solo jéego yu am solo am solo. di def ay sensibiliser di nit ñi di wax nit ñi nit ñi gën a jege hôpital ndax xam nga période bi ñu toll ni doyen. xam nga li ñu naan naaj bi mooy naaju ñoral. dëgg la lañ naan ci ci la waa kaw ga naan wax naa naaju ceer bi mhm. daanaka booy seet feebar yi day bari dëgg la yaram yi tàng yi day bari mhm. waaye tamit ñu nekk mois boo xamante ne la ñuy wax octobre rose xam boo gisee daan daanaka dafa nekk mois boo xamante ne nii mhm. surtout rawatina ci jigéen ñi ñi nga xamante ni ndeysaan euh, euh, yàlla daf leen nattoo ñuy am ay cancer du col de l'utérus yooyu yëpp day am di ñaan suñu borom yàlla képp ku ci am métit yàlla na la ko yàlla teggal moo tax weer bi dañ na octobre rose te wax dëgg yàlla xamante ne ni ñooy ministre de la ñu ngi ciy góorgóorlu lu baax a baax a baax a baax doyen kon di leen jaajëfal ndax euh, li ñu def am na solo bu baax a baax a baax mooy lan euh, mm-hmm. saytu saw askan ñu dénk la mbir mu demee na nga ciy def la nga mën ci lu baax ba mm-hmm. jaay di ko wax mu nekk lu am solo mm-hmm. ñu ngi leen jaajëfal baax a baax a baax mbokk dafa teew wala ñu ñëw clip jaay euh, waaw sànq dañoo nekkoon ci suñu maam ju tedd ja di mm. euh, alaaji Samba Jabare Samb mm-hmm. euh, ñuy ñaan yàlla yokk leeram te teeru ko àjjana ya gën a kawe waaye euh, sëtam bu am solo bu baax bi di Aïda Samb am na lu mu ko waxoon mm-hmm. waaw nit ki li gënee ma doom nga dee jal sala nga dee paas baaba nga dee ca ñaamina di fukki congal ma ku joojoo ma ca dee la jëmbaal Farsane muy ma jigéen ak ceeb muy ma jigéen Maguette muy ma jigéen. dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga kii nu mu tuddati Alaaji Njaga Mbay la ma tontu ci suuf waaw. wuy jàllo wuy jàllo laajte maa gën lu rëy. ceeb. ndeysaan ci digg bi doy looloy jamono. kii da laaj sàmm jamono sàmm. xalam léegi. ndeysaan ci digg digg. dafa yàgg lool ci aar te ko. doyen. waaw. ci dëgg-dëgg ñii ñoo leeral yoon bi. ndeysaan. buñ naan culture. Mhm. ndeysaan buñ naan cosaan ak aada. Mhm. ci wolof. ci dëgg-dëgg ñii ñoo tax alaaj Samba Jabate Samb. dëgg la di ma fàttali alaaj Ablaay Naar. Mhm. ndeysaan di ma fàttali alaaj Kaana Samb. ak ñeneen ak ñeneen. ci dëgg-dëgg man Mansour Mbaye nekkoon foofu nekk président communicateur bi sur le Sénégal waaw groupe Mbabor. waaw ah, groupe Mbabor. waaw lii dafa dafa rafet Ndiaye. kon waaw. Mhm. waaw mu nekk euh, euh, euh, modèle model la koo xam ni ci réewum Sénégal kii monument la di alaaji Samba Jabare Samb. Mhm. nga xam ni macha allah bu daan tee xelam nga toog lu baax rek lay wax. waaw. Mhm. yéeg fa mu yëkkatee. fan la yëkkatee. ba naan. xili baram dalaan. ne ko gis dee dégg ni moroom nga dee jal sala nga dee paas baaba nga dee ca ñaamina ñu fukki congoon ma ko joojoo ma ca dendee la ca mbaal mm. nguy ma jigéen ak cee nguy ma jigéen ak bakkante nguy ma jigéen wuy jaalo wuy nga dégg njëga may naan ko mooy la demaan ko jaay may la ma xool naa ci ci ma la may mm. ndeysaan mu nekk lu am solo mu de mu ni ji li borom dëlooñ xam nga dëlooñ mm-hmm. dafa nekk lu lu lu loo xam ne si ñu bari booy xool xamuñu ko dëlooñ dañi euh, jiri borom dëlooñ mm-hmm. mu ni ku ku gis de mm-hmm. dëlooñ dafa nekkoon euh, mbir moo xam ni da doon génn bu nawet di jub si maanaam bu première taw doon doon waaj a ñëw ci lay ñëw moo tax ñu naan xale yi euh, nañ dem teel a tëddi parce que boo ko gisee ci guddi gi rek tubaarkàlla moo tax mu ngi jë dëllooñ euh, mu nga xam ne euh, ku gis dee mm-hmm. nga xam ne gis ko moom musiba la woon donc ñooy yu mel noonu nag euh, kilifa yu mel ni ñoom ñoo koy xam di ko jàllale di ko wax askan wi waaye boo ko gëstoo rek daal di koy xam euh, leeram bu baax a baax amiin amiin amiin nga xam ni moom mooy euh, suñu maam Njaga Mbay moom it mm-hmm. mi nga xam ne moom it Astu Njaga Mbay ma koy jaar bu baax di mm-hmm. doomam ma nga fële ca diwaanu Wakaam di ko mm-hmm. ñaanal way juróom wi nga xam ne mooy Alaaji Njaga Mbay moom it yàlla na yàlla yokk leeram bu baax a baax a baax waaye Njaay du soriwaat bu baax a baax damay bëgg a ñëwaat ci sëtam boobu nga xam ni macha allah rend na ko hommage. ni ko mhm. boo amul euh, euh, doom ju la way man monsieur sët bi. dinaa mhm. la way kookoy Aïda Samb mu am fu mu génnoon ci moom ca euh, capitaine ba teel naa kon. nan nan nan ñëw foofu. ca moom ca Aïda Aïda. Euh, Aïda euh, Samb ñu di ko moom it euh, ziar bu baax a baax mhm. maamam ju baax jooju di alaaji Samba Jabare Samb macha allah mu rendoon ko hommage waayoon ko way bu am solo mhm. waaye nag vraiment way boobu tey jii nekk na lu gën a am valeur parce que li ma gëm la def mooy nit ki da koy rendre hommage ca ba muy dund mhm. Aïda jaar foofu macha allah ba bu demee tey jii buñ ko wayaate ñu xam ni ba nga ko koy defal booba mu ngi dund dafa am solo bu baax a baax a baax donc di la jaajëfal bu muñ euh, nga yàgg fi te sut ko ay fan bu baax a baax a baax Ndiaye. doyen lii dafa am solo. xam nga li tax ma ne li dafa am solo. Mhm. barki démb dama toog ak euh, maire Pikine Nord. Pikine Nord ku ñuy wax Mamadou Diarra maa koy nuyu de passage. Mhm. mu wax benn mbir moo xamante ne nii ci ñii nga xamante ñooy ndaanaan yi. Mhm, dafa benn journée ne mu dem Paris. dem ci benn salle bu mag. booba foog naa. a euh, euh, président Ablaye Wade moo doon génn. ànd ak ñi nga xamante ne ñi mooy mooy mooy mooy mooy euh, ndaanaanu Sorano yi rek. nee na bi ñu demee ba biir Paris. bi ñu duggee ci biir saal bi ñu fay làmp yëpp. ñu jékki-jékki rek sunu ndaanee ni commencé dugg ko ci mel ni ñoom nday mbay jin ma. ah ñoom fàttale njaay ñoom ñëpp. yal na ko yàlla yërëm ñoom ñëpp ñu daal di dugg. ñu jékki-jékki rek benn lumière bu ndaw daal di génn. am benn baat bu neex génn fële ca ginnaaw. dégg naa ba mu salaire ko. nee na fa mu toog munul woon na muñ ay rongoñam ndax sunu cosaanu Sénégal. dëgg la comme dégg naa dafa dugg daane. yéen a wàll yee. ndeysaan yoo li mooy Sénégal dégg naa fa mu toog dafa dafa dafa dafa dafa dafa jooy bay raat dëgg na Sénégal dara dara dàqul suñu cosaan dëgg la parce que Ndiaye euh, li ngay wax dama koy dëggal gis nga way woy day àgg ci xol moo tax euh, ñuy wax rek ni toujours ni euh, nit ki Euh, bu bu fekkee da ngay way macha allah. Mhm. Euh, euh, way kenn ku ne xam ne ni way lu neex la. mais le problème qui se pose mooy Youssou Ndour boo gisee mu amoon benn macha allah facilité bi ci way. ba ci doo. mooy euh, bi ma koy njëkk a bindal masamba cul des na mbul yaama masamba cul ënt burum yetu xaalis nga des na mbul yaama naka laa ko bind mu ni ma euh, mais foog mu am thème ma ko thème bi mooy gàccaam nga des na mbul yaama hmm. donc euh, foofu ba tey mu lay wan ni way bu diglewul booba yaa ngi doon bind thème nga maa bind thème bi yëpp fu fekkoon doy baa Ndoye Bane boobu fekk na mu ngi jaay ngooñ Ndoye Bane jaay na ngooñ. allo allo salaamaaleykum Ndoye Bane salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi na ngeen def maaleykum salaam. Ndiaye moom de cuuna. ah. cuuna cuuna. yow la. Eh, eh. cuuna. cuuna mu pagaay mbay. allo. allo. allo. cuuna da ngay wàññi télé bi toujours rek ñu déggante. allo. waaw mu mel ne cuuna cuuna déggante bi moo xawut a neex di ko ziar bu baax a baax a baax hmm. sëy na bu fay ma di la béggee bu wér a wér a di ziar Idrissa Diop hmm. sama tuuti waa Daaru Musi pare leen ñu ngi ñëw man daal ma jaaxal mooy doyen waaw doyen baal yokku sugi <laughs> ci Idrissa Diop doyen baal yokku sugi Idrissa Diop doyen baal yokku sugi ci Idrissa Diop da ngay dem ci gars yi ñu lay dafa ne maa <laughs> waaw Idrissa Idrissa Diop damaa bëgg ñaw yi. Mm-hmm. nga di ci ñawal njaay.

mënta ñàkk jàpp ci suñuy combat euh, di leen bëggee di kontaan jom di kontaan bu baax a baax Youssou Youssou création moom sa mbokk ma nga ca Pikine waaw tali bu mag am na am na am na Pikine ginnaaw raay aussi Youssou création Youssou di koo xam ne day jàpp ci combat yi gars yi bu baax ñooñu faaw ñu la leen ziar ku ci mel ni sa Diop mi keneen ak keneen mënta ñàkk mënta ñàkk ah, ah. Ah, loolu mënta ñàkk yoon yoon boo ko wax sax du baax waaw mënta ñàkk mënta ñàkk fo loolu tudd waaw <laughs> <laughs> di ko ziar bu baax a baax waaye di xool ne eh, am na clip boo xam ne de mhm. Euh, ça me rappelle de choses hein. Euh, bi banati la woon waay. ki euh, xam nga Youssou Ndour daf may neex benn côté. Mhm. parce que mas naa toog. muy mhm. bind wayu naan li ma xale bi jaral ni ma xale bi di def li ma xale bi jaral lu mu yàgg yàgg. may daan léegi nag am ah, wax ko benn yoon te see dem si yàlla si ci ginnaaw ndeysaan ma la bëgg yor guitare basse bu mag bi ndeysaan Habib Faye di ko a Gane yàlla yàlla seral ay yaxam barke yonent bi ndeysaan ayca jox ñu ko ñu xool xale bi lim ñu jaral ni ma yàgg yàgg may daan ah yéede yoo yéede ah ma ko benn yoon te sey man dama la bëgg ah wax leen ko ñaari yoon ko bëgg su ma dajee moom du ma mën a wax sama fit jóge fii ma genn cooy a wax ko benn yoon te seey man dama la bëgg man dama la bëgg tawatuma looloo ma sonal ni sama liggéey tardé suma gaañi di sëtuñ ma jaaxle am na xarit bu ma ne di woon ne xam ne waaye fu muy jaay lu mu jara ma waxaale sikk moom na ca yokk ab tambuure bu boo doyul ma yokk ca mara tiisuwe war ma sikk moom rusam waaw waaw war ma sikk moom na bunte danaa téléphoné dig baat dig diga dellu waaye dinaa téléphoné Thiam la secrétaire film nii laa ko poñee nii téye ko <laughs> macha allah macha allah mu nekk euh, way bu am solo boo xam ni euh, Ndiaye. Euh, daf ñuy rappeler lu bari après macha allah comme ni ko ni ko ñëpp gis rek Ndiaye waaye nag bu ñu fàtte ni. Mhm. suma jigéen du ak mbay Dieye fay sëñ si ñi birim géej yu ba yaay Awa Ndiaye ñoo bokk benn benn benn anniversaire donc nag il fallait que ñu ñëw ci foofu waaye nag Ndiaye dangay dellu ca taggu Youssou Ndour ga doole du rëy ndeysaan ci digg dugg ci ànd bu yàgg boobu doole yàlla mooy xam boole dëgg la sunu borom tabaraka taala waaw fu muy bindee hmm. fu muy créé ay ànd doom waaw ay xaritam waaw ay soppe waaw mbay ngay fay waaw ndeysaan ci fu la jël hmm. faydaam hmm. fulaam honnêteté ndeysaan ci digg digg loolu moo leen boole mu yuusu dëgg la yàlla def ci digg dëgg ñu bokk benn jour bu ñu juddoo. ndeysaan. ci dëgg-dëgg Aliou Winthiam Faye mooy baayam. Mbaye Dièye Faye. ci dëgg-dëgg moo bokk ak Faye. Elhadj Faye. Mbaye Dièye Faye. ci dëgg moo bokk moo bokk Baye Demba Ndiir. Baye Demba. ci dëgg-dëgg mooy Baye Thiané dëgg la. ci digg digg euh, euh, ndeysaan ba ba ba jëy fa ñoo ñu ba ba ba jëw Ndakaaru Njaay Ndakaaru ku wet li ma ci dëgg la laajal laajal seen maam lu daaw mbay dëgg la ndeysaan bu ndakaaru yee gës si kaay kaay maq suusal ndeysaan bañ naa bay jéy kaay maq suusal mm-hmm. ñoom ñëpp ci dëgg-dëgg mm-hmm. suñu yaay ji nga xamante ne moo naan day soxna mbuub mi nga ah. xamante ne man musuma koo gis ndeysaan musuma koo gis dëgg la seetal li musuma koo teg ba dëgg la loolu am na mm-hmm. waaye nag ci dëgg-dëgg moo leen booroo jaboote ndeysaan ci dëgg-dëgg ak suñu yaay ji yaayu mbay jéy fay ci dëgg-dëgg di di di di yaay yu baax day du waaye waaw ndey yu baax mooy jur doom yu baax bu ñu kenn jaaxal kenn rey seen ànd bi ci dëgg-dëgg mhm. yal na yàlla guddal seen fan amiin ci dëgg yàlla yàlla may leen wér gu yaram amiin sëriñ Ibrahima Mbaye mhm. dama lay baax tuuti nga xuus ci ci diggante ñaar ñooñu ndeysaan nijaay ba nga waxee ba noppi mën naa ci bañ sànni kaddu <laughs> waaye dafa fekk ni boo tuddee musuma jigéen duur ndeysaan ca dëgg-dëgg lu mu gàtt gàtt gàtt war a dafa sànni kaddu ndax yusuma jigéen duur bëggal na Sénégal bëggal Afrique bëggal Amérique bëggal Asie Youssouba Jigéen Ndour mooy xale bi nga xam ni ku mas a tollal jamono bàyyi nga ko xel ca ngor ga ca fulla ja ca jom ja ca bëgg lu baax ja waaye ca sopp boppam ak fonk boppam fonk réew mbonu moom investir ko ci réew ndeysaan yërëm daala mat na buur maa sa bay bay bayaane yusmari sellananda dorobe dorobe sama waaji fan ba mu yàgg lool dorobe dorobe moom mooy jël dund gudd gudd leen fan ndeysaan xam nga lu xam nga lu ma yor moo tax suñu yaay ne soxna mbuub moo nekkoon ca waañ ma moo tax mu rendre ko hommage ni ko boo lekkee ba suur war ngaa gërëm war ngaa gërëm ki dugg si waañ weey waañ wa tàng na kon yaay soxna ndey soxna mbu faaw ñu la hommage yow it vraiment ndax yaay ju baax mooy jur doom ju baax macha allah Youssouma jigéen Ndour ñi ngi lay ñaanal nga dunda dunda dunda dunda dunda dunda dunda dunda dunda dunda dunda di dem rek waaye sa yaay ju baax jët ñu ngi koy ñaanal aja nday soxna ak suñu bàyyi ilimaan ñoom it ñu yàgg fi lool te wér ndax seen yàgg fi am na njëriñ waaye nag dooyee prochainement Youssou bu mu amati anniversaire te souhaité mu joyeux anniversaire dinaa la mère mère éternel dëgg la Njaay mère éternel xam nga mère éternel mère éternel mooy mère boo xam ne <laughs> di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy As Diobé Silla alliance pour le développement de Louga di sama genn wàll di sama xarit di sama. démb rek ndeysaan gisante nañu waxtaan nañu lu toll ñaar deux heures de temps. Mhm. mu taxaw ci mbedd mi As. du ko xamante bu ko neexoon fuy yomb ko lool. waaye def ko mu oyof lool doyen. fii baax dañ koy wax de dëgg la. barke nit bi taalibi sëñ Bamba rek la mën a def kon asmaa ngi lay ziar di kontaan ci yow baax a baax waaye di ziar euh, également euh, ki nga xam ni euh, mooy Amadian waaye nag moom soxna si tey dafa am anniversaire muy soxna Astu Wàdd di madamam di jabaram di ko jàppale fonk ko respecté ko waaye lu muy def soxna saa ci kan joyeux happy birthday Zoevani. Verser. Zoevani. Verser. Zoevani. Verser. Son assoade, Mohamedien. Zoevani. ñu koy wax ne ko soxna su Wade ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire dundal 111 ans sans ordonnance ñu ngi lay bëggee waaye nag de la part de Amadian euh, euh, euh, ñoom Aba laa poñe nii fi mu ne ñoom Pape Cheikh parce que yi may def yëpp di wan yi. Mhm. pour moom ñoom ñoom laay wan nii technique bi ci man oui vraiment di leen jaajëfal bu baax di leen wax ni ñu ngi jaajëfal bu baax a baax soxna Astu Wade di la wax ni dundal 111 ans sans ordonnance. Mhm. fii ci Télé Futurs Médias Pape Cheikh Diallo am te El Hadj am na problème. sérieux. amaan naa ci digg-digg beneen adversaire. muy ban ci. ki nga xamante ni ci digg-digg ba taaj na nekk roi di Zaret. Mhm. roi de. Zaret. Eh, xam ko ci digg-digg moo ko fekk jëlee ko ci moom. xam naa ko. ci digg-digg yu bëre yàlla de muy am ay ndam. Mhm. waaye nag ndam bu nekk de saa gàllankoor da cay am yenn saa nga am defet te da koy muñ ndax sportif la. ba baax la ngay ñëw jël leen nekk ruux day saran ci digg mu ñëw jëlaat ruux day saran bi jëlal am Sénégal ci digg daal di ko yóbbu ak borom guddi guddi ñu boole kook rukki bal ba wax ay teytaan def ko lam koy def mu rëkk ko daal di jël sport Sénégal daal di koy daal di koy génn ci réew mi international ko ci digg daal di mm-hmm. kan moo koy kan mooy doomu muur ji laaj ma koo koy kan. borom petite côte bi. mooy borom petite côte. ay mooy Bombardier. Serigne Dia. la la la la happy birthday to you. ay waay happy waaw sama xam nga fan laa ko jëlee. ah ci Marie ma doon ci foofu. ndeysaan Whitney Houston dafa nayoon nag mais dañoo bari woon ay tonu ceeb ñoom ah, moo tax Whitney Houston huit tonu ceeb la amoon mais da cee nayoon ci tonu ceeb yi. Mm-hmm. di ko jaajëfal bu baax euh, Bombardier euh, mi nga xam ni moom mooy euh, ndeysaan dama koy wax toujours. Mm-hmm. roi des arènes. Mm-hmm. ndax xam nga lu tax. Mhm. c' est parce que euh, dañ doon wax ni Dakar du saf ñaari yoon. Mhm. waaye gis nañ ni moom saf na safaat. Mhm. kon ñu ngi lay jaajëfal doomu mbuur bi di la wax ni dundal 111 ans sa ordonnance. waaye bëgg naa sama combat ak yow parce que bëgg naa mën ak ko ñaari yoon moom bomb. daan naa ko deux benn maa ko fekk mbuur bi ci des ñu ngi bëree sànjara. ma yenu ko ba ca kaw fëgg ko ci suuf kon donc yow suñu yow sa revanche nga ko laaj. war nga ko jël si. di ko nuyuwaat encore waa Mbour. di wax ni euh, joyeux anniversaire à vous Bombardier. Mhm. di la ñaanal gudd fan ak wér. Mhm. waaye tamit euh, doyen. Mhm. dafa am koo ne ni dama koy jaajëfal. di doomu Pikine. te kenn ku ne xam ne ni man Pikine laa juddoo. kon ku bëgg Pikine rek dama ciy taxaw. wax ci li nga xamante ne ni mooy sama wareef ci yow. di nuyu bu baax la président. Mamadou Gueye borom euh, parti convention citoyenne. neneen di ko jaajëfal. Eh, waaw Mamadou Gueye fan yi dafa def lu am solo doyen. Mamadou Gueye di sama xarit. waaw jël xale. waaw ñëpp mu jël leen dugal leen néegu góor. yow mi sa woon na la pour boole la. non man nee man ah, ah. yooyu moom di ko xale nga wax man man xam nga mooy actuel ay ah. président AS Pikine. néegu góor yi lan. ah loolu la di. yow woowu loon pour nga bokk. ci eh ah, damaa juum damaa juum sa doom la waxoon bébé Mohamed pour nga indi ko ca. Eh, loolu loolu yëpp jarul inversé. man ngay accuser publiquement naan te damaa juum ah, ah, ah baax na mais damaa juum. waaw ok mais mais madame du ñu àtte àtte ñu. non dama la ko wax.

fanweer bu baax a baax a baax ana ma nga ca Nations Unies ñu ngi lay bëggee bu baax di kontaan ci yow bu baax ay satu saw sama mbokk ñaambur ñaambur maa ngi lay bëggee waaye di bëggee également waa Louga Ndiaye euh, Louga euh, nawetaanu Louga moo dàq ci Sénégal dëgg la waaye Baraat Jokkoo Baraat Jokkoo ñu leen di ñaan di leen wax ni leen Baraat ak Jokkoo ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te dëkkandoo jàmm moo ca gën mm-hmm. teg leen lépp ci fair play euh, ñin ñi nga xam ne tamit téenal lañ ci nañ leen bàyyi parce que ñooñu vraiment defuñu dara nañ leen bàyyi wax la wax ja bari macha allah kenn ku ci nekk gis sa bopp kon ñu ngi leen di wax ne leen def la lépp ci fair play même jamono jëwrin nañ ko defee noonu ci fair play parce que sanc ba noor ak sanc ba siddi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nawetaan football du tàqale waaye day boole kon lépp teg leen ko ci fair play maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di wax ne nag commissaire bu police lu maa ngi ñëw bàyyil maa ma fay ak gaa yëpp maa ngi leen jaajëfal bu baax xanaa nag Ndiaye. Mhm. ñu teg benn clip bu eh, kii man ban clip laa war a teg waay ban Euh, ban clip. xo bi dama ci gis sama bopp bu baax a baax a baax boo ko amee rek da nga koy téye nag boo ko téye rek euh, mu dëgër te bu dëgëree ñëpp bàyyi la ak moom kon mhm. am nga ko téyeel xam nga Youssou macha allah mhm. euh, day wax kàddu yoo xam ni vraiment boo dul ndaanaan dëgg dëgg dëgg wala nga am dëgg dëgg dëgg doo ko xam mhm. est-ce que xam nga ni way bi mu naan yow loo doon daaqee ki mu jëm àll mën ko dàq mu jëm kër ga loolu nit waaye na ko nu ne am na ñu doon wax yow loo doon taaxee lu ne way nañ ko lu ne way nañ ko ko cest à que mu nekk message fort yoo xam ni li ngay dàq kéwél mu jëm ci àll hmm. nga dàq ko mu jëm si biir kër hmm. donc muy way wayu am solo yoo xam ni taarkàlla macha allah hmm. euh, bu mel nii nag dinañ ci fàttali lu baree baree baree bari ci suñu ci suñu ci suñu ci suñu enfance surtout euh, donc euh, Youssou maso spécial à vous vous avez la parole Ndiaye. dëgg la dërët doyen ci wéy bu am solo boobu ñu tegoon sànq vraiment c'est une telle très belle chanson. Euh, vraiment boo at ñëpp di ko bégee vous savez euh, ça me rappelle ci euh, suñu notre enfance bi ñu gën a ne xale. man doyen bi ma gënoon a daanal ci ay son mooy bi mu naan. Ah, ah. pitata yi na. ndeysaan pitata. man boobu moo doon doon def ci ay tudd nga boo xam ni. waaye nag doyen. waaw loo xamante ne nii. ci euh, sama xol sama xol laa ko tibbee tam sama koy wax neex. Mm-hmm. ndax euh, doyen. Mm-hmm. ñun ay taalibe murit lañu. waaw te it euh, wax dëgg yàlla képp mm-hmm. ku ñu gis. ngay sonn ci yoonu murit. waaw ndax murit mooy jullit mooy ñëpp. dëgg la Sénégal ñu ne benn lañ. dëgg la Euh, cant ak ngërëm dafa am du question li ñu nekk ci kër gi. dëgg la du question li ñu li li mu nekk suñu directeur. dëgg la mais. dañ ne kulil xaq wala kaan muran yàlla dëgg rek la bëgg. yaay dundal dafa am loo xam ne. Mhm. Euh, euh, bi ma ko la tante madame Ba. Mhm. envoyé vidéo bi. Mhm. di ñaanal bu baax Oumy Ndiaye sunu sunu sunu mag sunu yaay. yal na la yàlla may gudd fan ak wér la tante moom ndeysaan daf ñu bëgg ñun ñëpp la bëgg. madame Ba waaw man moo a gënal Sidi Ndiaye ak ay ñoom. non Sidi Ndiaye moom moom ma leen gërëm a mooy sama xarit waaw ñooñu fool naa leen man maa ngi ci madame Bala mais doyen mhm. bi ma gisee vidéo bi mhm. pour une première fois mhm. ma gis ko mu wax ci écran waaw tey Masaalikul Jinaan ba mu commencé ba ni muy jeexee musta noppalu benn yoon dëgg la may ñaan képp kuy taalibe képp kuy murit na nga wax Ndiaga Ndour yàlla na fi yàgg te wér ci barke yonent bi non je te non dafa rafet képp kuy taalibe képp kuy jullit hmm. Sénégal da nga wax Ndiaga Ndour na fi yàgg lool te wér doyen nit dina nekk ci ruqam hmm. di def lu rëy hmm. di ko def ci diine te kenn du ko xam te du ko waxee du ko jëfe bu dul ñun ñi nga xamante ne ñooy def animation di ko wax doo ko mës a dégg ci moom doo ko du ko doxe du ko waxe doo ko sax dajeek moom ba mu ba mu ba nga xam ni kii mu ngi def lii ci diine dëgg la di ci def al di ci def ñaxam sonn ci lool xool ci jumaa ji Masaalikul Jinaan ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu defee ni mu ni mu monté monté monté régie euh, bi sonorisation yi ci nekk yëpp dafa am solo mm-hmm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan mm-hmm. njaga yàlla yàlla may la gudd fan mm-hmm. may la wér ak képp koo xamante ne àndu naa ak moom dégg la doon liggéey yow ci Masaalikul Jinaan gi ñun loolu rek la ñu am doyen ki nga xamante ne nii ci wàllu diine ndax Sénégal xam nga dafa ne dëkk dëkk diine képp koo xamante yaa ngi ci nekk. wax dëgg yàlla di ci fu di ci def sa ñàq daal. yal na yàlla fay la jërëjëf. kontaan loolu suñu sag la suñu tiitar la ñun euh, euh, ñun ñun àdduna bépp laay wax waaye rawatina ñun murid yi. bu demee ba sa directeur macha allah ñu toog mbakk yi fay jàkkaarloo moom ni ko yàlla na la Serigne Touba fay loolu rek dafa wecc lu ne kon Ndiaga du ma revenir aat hmm. di njaaye ñaan mënumaa ñaan lu ko raw hmm. waaye li ma lay xamal mooy hmm. képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna jàppal li bëgg na ci yow ci li nga liggéey ci néegu yàlla bi kon amuñu sa fay waaye di gërëm man Mbacké Faye xaw ma ko mosuma koo gis maa ngi yow yëpp non benn yoon mos naa ko gis benn yoon <laughs> waaye keroog lam <laughs> koo gis te xaw ma ko waaye xam naa ne sëriñ bàmba dong dong dong nga ko ñor kon ñu ngi lay ñaanal yow it taxawu liggéey bi ba suñ borom sottal ko ñi ngi ñaan mbàkki yu fay yàlla na suñ borom guddal sa fan te la wér ba nga bëgg ci yoonu sëñ bàmba yi ñu jox la ci lu kawee sa njor te dina am ndax sëñ bàmba amu tànk ginnaaw yu kanam rek la am insha allah ku liggéey ci bàmba ji yokk ba yëg kon nag ñu demaat ci kii rek ñëwaat tey damaa aalu ndeysaan oh, oh, oh, ndeysaan di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom la ñu rek euh, ci way bu am solo boobu nga xam ni euh, boo ko déggee rek sa daal di féex daal di sedd ñu nuyu bu baax a baax a baax ngay xaar faal. di yaay Seyna bu fële ca Pikine ñu ngi lay ziar baax yaa ko mu ngi gërëm bu baax a baax a baax ñaari doyen mi nekk fële ca Molde xam naa dinañ ci après ñu ngi leen di ziar di kontaan ci yéen bu baax Biram Silla sama jigéen la ma ngi ci diwaanu Louga Biram maa ngi lay ziar tey kontaan ci yow di di am mbégte ci yow Serigne Mbacke. Serigne Mbacke maa ngi lay ziar di ziar Serigne Diop Tailleur ca Louga. Mhm. waaye di ziar Thiané Khoule ca Louga. Seex mhm. Ndaanaan maa ngi koy bëggee ak ki nga xam ni euh, moom mooy euh, euh, Serigne Mbacke yéen ñëpp maa ngi leen bëggee foofu ca diwaanu Louga di jël morceau boobu nag di leen ko jox Ndiaye. doyen merci beaucoup di nuyu Fatima Sey depuis Rouen. Fatima Sey depuis Rouen Fatima Sey. Fatima mu ngi fi. mu ngi fi di baax rek doyen mu nga fële ci Rouen. instant bii nii xam naa moom ci salon ba toog ñu ngi seetaan. Mhm. moom ndeysaan dafa bëgg émission bi trop. di nuyu bu baax yi sa soxna Ami Collé Thioune. Mhm. nekk fële ca nekk def depuis Paris. Mhm. depuis Paris. Paris waaw Paris euh, maa ngi koy nuyu euh, ami euh, As Thiam. nekk fële ca Paris. moom ndeysaan c'est le c'est As Thiam. c'est le petit frère de de de c'est le frère de Thiamas. frère waaw ouais, le, le petit frère de Thiamas. frère un homme bien un homme très gentil. di nuyu bu baax euh, Cumba Sakho maa ngi koy nuyu bu baax sama copine. di nuyu euh, madame Mangara euh, Madi Chanel. maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu encore mon ami mon frère ma Diop père mon ami. voilà di ko ziar bu baax a baax di ziar Ablaye Mbaye père. Mhm. moom ndeysaan wax dëgg yàlla. dend ak moom rek da ngay am ci leer ga. dend ak moom da ngay am ci xéwal ya di ko ziar bu baax a baax. kooku weesu na kooku kooku kooku kooku kooku kooku ndeysaan euh, weesu na foofu Baye Ablaye di nit ku baax mhm. di nit ku gore mhm. waaye tamit euh, euh, di ziar képp koo xamante ni ndeysaan mu nga Pikine du ñu setaan mhm. rawatina suma waa kër sama yaay di ko ziar a baax ak samay rakk di leen ziar a baax <laughs> waaye ki nga xamante ni ni ndeysaan di nit di as ndaw borom du kumaan as ndaw borom du kumaan as ndaw borom du kumaan sama transitaire bu mag boobu taal bi sëriñ Babacar Bakar ak daraman aram loo kuma caam sa fiyatu aram bonko aram bonko soxna Njaay ngi Njaay Fatma kooku sëriñ Babacar rek la gëm di taalibi cheikh bu mag a mag gëm na ko jara gëm waaw di ko ziar bu baax a baax di nuyu bu baax euh, madame ko ziar sama mm-hmm. bu baax a baax doyen kontaan bu baax di nuyu Kumba Mbeng ma nga ci fële ca sanc banoor ca Louga waaye nag dem ba nag montagne daal di dem ak Alaaji Mor Gay ah mm-hmm. sama jigéen ba Sagar Diop mm-hmm. maa ngi lay nuyu di kontaan ci yow bu baax a ak waa kër Alaaji Mor Gay gépp di leen wax ni Sagar yow lu yàgg dëgg la te yow yàlla dafa def euh, dañoo yàgg euh, maa ngi lay ziar bu baax a baax tey kontaan ci yow fu ma mën ci toll food ataab maa ngi lay ziar. ak mm-hmm. waa fast food bi yëpp. Mm-hmm. ataab sama xarit damay ñëw daf may jox xoola njaay ci yàpp yi damay lekk bay raam. Mm-hmm. njaay ataab borom relax food ma lay jaajëfal ma nga fële ci comico. di kontaan ci yow bu baax a baax di la jox sa wàccu waay. jërëjëf doyen di nuyu bu baax sëriñ Mbacke Touré di ko ziar ndeysaan xam nga doyen. Mhm. ñu ngi ci euh, euh, euh, safar dafa dugg si. safar gi ñëw na gars yi di waajal mhm. li nga xamante ne ni mooy di safar gi di mhm. màggal ga jëm Touba. di ñaan suñu borom tabaraka taala yàlla na xéwali saawan baawan. amiin waay yàlla na xéwali wàcc. amiin ñëpp fekk ko Sénégal am ndam. am xéewal am jàmm. di wax ne sëñ Mbacke ture mu ngi waajal fële safar. di alxamis bi di ñëw jeudi mu ngi waajal safar gi. cee def ay xéewal ay bu dugg see. da ngay gis njaay waaw nit ñi def ay kuréel. Mhm. nit ñi def ay kuréel fu ne mhm. nit ñi di fa génn di def ay mhm. bi jërëjëf Serigne Touba encore. waaye nag di souhaiter Zeyna Diallo euh, happy birthday. di euh, happy birthday am di ñëw la kat bi par anticipation. moom ndeysaan parcelle la dëkk doyen. waaw Ndiaye ñun ñu ngi waajal suñu benn safar bu mag ci fii ci bitigu Cheikh Ndiaga ci euh, cité assemblée Cheikh Seri Tako ñu ngi waajal suñu safar bu mag foofu waaye Tutu Cissé ak Asilña ak waa rajo bi nga xam mooy Ndiambour FM ña ngay waajal safar bu mag. ca ca rajo ba kon na ko ñëpp waajal ndax uh, Ila Touba rek Sëriñ Bamba bu xewlee dañuy bàyyi lépp jël lépp teg ne dëtmal xew Sëriñ Bamba gi te mm. uh, tukki ba uh, macha allah moo waral tey suñu noof nooflaay kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax ni ay ca Ila Touba toogaay mm. jeex na Ndiaye xanaa rek waaw waaw vas-y jërëjëf Adja di nuyu bu baax Adja Jaxu Seck nekk fële ca banque BOA waaw Adja Jaxu Seck di suma xarit sama jigéen bu baax boobu sant Gueye ah? jaxu sekk jaxu sekk jaxu sekk de am naa ci jabar mag soxna si mag di tudd jaxu sekk ajaa jaxu sekk ajaa jaxu sekk <laughs> Adja Diakhou Seck Adja Adja Diakhou Seck lay Diakhou Seck Adja Adja Diakhou Seck mu yaat ma gay mu yaat ma gay mu yaat ma gay Diakhou Seck mu yaat ma gay Adja Diakhou Seck mu yaat ma gay Adja Diakhou Seck mu yaat ma gay Diakhou Seck Adja Diakhou Seck mu Amina Diakhou Seck Tali Gueye Diakhou Seck mu Sëñ Abdou Diakhou Seck Tali Gueye borom kaw yaay Awa Ndeye Diakhou Seck Tali Gueye ay borom kaw yaay Awa Ndeye Diakhou Seck Tali Gueye ay borom kaw yaay Xaadim Diakhou Seck Mutafa Talla yaay Xaadim dafa seet ba tafaatal la woo yaay Mamadou Lamine Baara Moustapha Tall laay woo ay ma ne eh, ay jaxu seet jaxu seet Fatima Sey borom ruwa eh, jaxu seet sooda de borom ceeb neex yaa woo eh, ma ne jaxu seet dance ma regintaaj seek waaye jaxu géej gi nag moo daaxoon kon jaxu ñu lay jaajëfal baax sooda jërëjëf ku nit ku ne am ngay keseñ keseñ ku bëggul lii nga bëgg la ca des ba mbëggeel lu mbëggeel du ko gis ku ne am say salañ salañ ku ne am say keseñ keseñ xale bi yaay ba wax na mu bañ xale bi baay ba wax na mu bañ ki mu bëgg moom nee na ko ba buñ ko waxee mu ne ndox na ma rey ku ne am say saleen saleen nit ku ne am say kese kese yombut a dagan de ah waaw di ko jaajëfal bu baax waaye mbay jëy fay déggal la mu tëgg laa ilaha illallah gurum gu jàcc gin cak cak gurum gu jàcc gin cak cak gurum gu jàcc gin cak cak ku jur gu jàcc ku jur gu jàggin ah, jàggin ni pàcce ah. gun gun ràggin maa ko jàngal ca sañ-sañ di ko jàngal bari nañ doyen bari nañ du bu ma leen doon wàññi bu ma leen rangale woon ni ñu trompe pour di dem la ilaha sérieusement hmm. ah di ko <laughs> di leen jaajëfal bu bu baax a baax a baax di euh, nuyu ku bu baax euh, sama sama jigéen bi. Mhm. Euh, Sagar Diop du ma jug ci di ko nuyu waaye bu ndaw maa ngi lay ziar bu baax bu ndaw foo ne ñool yoof ay bu ndaw ñibbil maa ngi lay jaar bu baax tey kontaan ci yow baax a baax ak foo mënti yoo nekk waa koñ ba waa dëkk ba waa gox ba waa néeg ba waa foofu yëpp maa ngi leen jaar bu baax a baax tey kontaan ci yéen bu baax bu ndaw euh, di jaajëfal noo Ndiaye fànn ma ci li may wan ne R yi te xam naa ni oh. madame Ndour moom moom moom gisatul parce que dama dama egg di leen jaajëfal bu baax di kontaan ci euh, ASC jamono bu Louga mhm. sama ay see bu mag boobu nga xam ne maa ngi ñaan mu jël coupe yëpp mhm. yàlla na équipe yëpp am jàmm waaye yàlla na sama équipe jël coupe yëpp yëpp waaw loolu la doyen di nuyu ki nga xamante ni mooy suma kër mooy kaar eh ñu koy wax Njaay Ja tukulóoraali racine pour kene Njaay Ja mhm. suma kari la moom mooy baayu bébé Aysa Ja Ja jàppu la jéeri koy jarbaati am eyi eh, cukalore laasi ali rasil ñulmaji souleymane mbarka ba camatam cam souleymane ten yo bone mbaal souleymane mbarka ba jëlal ak cuɗoɓone mewa ak la car bonin na gepullo wawaw ala roki mo yalale a ah. lelele bullo ndeysan hala rokkunomi demgal a ah. pulaar ko dem ngal dëggal loolu ala rok nomi gandal ak lan fulaar gandal di def ko kaset ehe yaayo gidam ehe yaayo gidam ehe yaayo ala gidam eh, eh,